xam ngeen ni euh, ñun ay soldaaru président Macky Sall lañu euh, président de la république euh, Macky Sall dafa lancé benn appel bu am solo appel boobu dafa ne ñun sénégalais yi nañu jàppale suñu concitoyens yi nga xam ne dañu nekk ci ay jafe-jafe ci wàllu disponibilité mooy deret loolu nag yaakaar naa ne. Euh, ñi ci wara jitu moy mooy ñi nga xam ne nañ né dañuy accompagner président de la république lolu motax biñu déggé appel président de la république amuñu lenn luñu wara def moy c'est de nous organiser en rapport avec les populations yo xamné ñun ak ñom ño nek tous les jours pour les inviter à ce que ku nekk ñëw euh, joxe euh, deret parce que joxe deret kenn umpalewul kenn umpalewul ci jaamu yalla la bokk kenn umpalewul ni bo joxé sa deret di nga jàppale say concitoyens di nga jàppale say mbokk deret mom

solidarité nag mu ngi tambalé nga jappalé ku new new doole nga jappalé ku feebar loolu solidarité yaakaar naa ne foofu lay tàmbali. yaakaar aussi fi nga xamné moy mooy centre transfusion sanguine euh, gis nañ né sénégalais yépp ñu ngi répondre ci appel bi nga xamné président lancé nako parce que sénégalais yi ñu euh amul yu melni organiser organisé wul ñu melni ñu ngi def déplacement dem mun nañ def déplacement dem ci centre transfusion sanguine pour que ñu joxé fofu sen deret